You lift me up high, you spread my... Asalaamaaleykum ni ngeen def bàyyi leen ci jàmm ndées ndées ndées ndées ndées ndées siyaam nañ la bu baax a baax mbàyyi ci jàmm sëñ sëñ sëñ Ibrahima Ndéef mooy sa maam ku la xamul dégg na la borom borom borom ñaari fekk jëre ci ci noppi yi waaw yow yàlla kese nga yow yàlla kese nga ana suñu seex ana suñu seex pour paat yàlla ay kese nga. seex seex de dama kaa yónni woon fële. waaw waaw. xam nga wàccaay koor bi. waaw waaw waaw wàccaay koor bi ma yónni woon koor. am ndonga ndonga ndonga daara yoo xamante ni des fois dañuy bëgg a ñëw mais duñ mën a ñëw. loolu dëgg la dëgg la ma ay bagages yoo mhm. dama koy faral di ko yittoo. waaw xam nga moom ku ne fii ñëw. waaw waaw waaw man damaa demoon côté marché Gambie. Mhm. foofu ci côté marché Gambie. waaw waaw côté ci fi ñuy jaayee téléphone yi. ma fa doon lijjanti benn téléphone ndax sama client yi dañ may woo. waaw waaw ma bëggoon ñu lay suñu barke bi yomal xiyam ak sa barke maamu sëriñ nga defal ma rek ginaar yi may jaay ci korité bi mu jar ba taw bi xam tey si waaw waaw ah kon da ngay yëngu si ci wàllu ginaar da ngay yëngu ci wàllum ginaar. ndeysaan wàllum éleveur. ndeysaan waaw ci laay yëngu waaw. éleveur. ndeysaan waaw waaw. ah loolu baax na. waaw waaw waaw. loolu baax na ah waaw. ginaare sax de xam naa ne bëggoon naa ci def. Ah. waaw bëggoon naa si def. Ah. bu sëñ bu seex seex seex bu ñëwee. waaw dinaa xool ñaata ginaar yu méngoo si lay soxla. waaw waaw après ma jox xaalis bi mu ñëw moom ñaata nga weccee koo ginaar yi moom. ginaar maa ngi koy jaay. Uh-huh. ay huit mille sept mille waaye yow dama la koy defal benn quatre mille. quatre mille ndax yow sama sëriñ nga. sëñ bi ndéef lii mën naa la koo jaay loolu. wallaay yàlla kese nga rek moo tax ma def loolu. waaw waaw euh, dinaa ko yónnee pièce de xaalis dinaa ko yónnee bëgg naa si daal dix ginaar. bu liggéey rek maa ngi ciy parag ba parag ba. waaw foofu nga mën a fekk sëñ bi. ba ngay sol sa maraak sa benn maraakis ba. waaw yàlla kese la waaw. xaaral ma xool dix ginaar ñaata la sax. ginaar plus quatre mille la. Mhm. kon bu ñëwee dinaa ko jox bi quarante mille. waaw léegi bu liggéey nuyu ma ko. léegi maa ngi dem sa nga defal ñaan. waaw defal may ñaan. amiin amiin amiin waaw waaw yàgg nga ko bëf ci sama mère kon yàlla kese ngi si